laylatul mawlidi lasi kaana lidi ne sororon bi yawmihi wazdiha salli ya rabbana wa sallim ala ma هو للخلق رحمة ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وضحاه صل يا ربنا وصل ولما هو للخلق رحمة ليلة المولد الذي كان لدي نسرور بيومه وضحاه صلي يا ربنا وصلي على ما هو للخلق رحمة وتوالى البزر الهوات بأنقار ولد المصطفى وهاك الهناء En grand visionnaire, Cheikh Ibrahim Agnès Baye créa le fonds Medina Baye dont la mission est d'accompagner la Hadara à la réalisation de ses projets d'envergure dans le domaine du développement, de l'éducation et de la santé. Une initiative pérennisée par le défunt Khalif, Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim Niass, et appuyée par le Khalif Cheikh Mohamedoul Ibrahim Niass, Khadimoul Le fonds Medina compte à son actif des réalisations majeures mais à d'autres défis à relever. Participez à la réalisation des projets du Fonds Médina Baye en envoyant vos contributions au 77 481 04 04. mbëggeel ak cofeelu taalibe xidma jamiyatu ansaruddin Sénégal symposium international mawlud Medina Baye 2024 muy am fukki fan ak benn ak ñaar fukki fan ñaar ci weeru septembre ci résidence Abdoulaye Bayero këru gan ci Medina Baye mbokk yi loolu koy def ci ndigalu xalifatu saahibil faydati tijaaniya cheikh Mahamadul Maay cheikh Ibrahima Niass xaadimul umma imam cheikh Tidiane Seydi Aline Cissé imaamu ratib Medina Baye ak ci kilifteefu cheikh Mahamadul Munhamin na cheikh Ibrahima Niass njabootu Cheikh Ibrahima Niass maanaam tënku gu Cheikh Ibrahima tënku woon ci sunna tasaare gum ko tasaare ak dekkal gum ko dekkal mbokki programme bi nii lay tëddee àllarba fukki fan benn ci weeru septembre bu 16h30 jotee ci la ñuy amal cérémonie ouverture ci discoursu Cheikh Mouhamadoul Mounhamina Cheikh Ibrahima Niass président Ansaruddin national toftal ci discoursu Serigne Aliou ibnu El Hadj Abdoulaye Ibrahima Niass ci discoursu Cheikh Ahmed Boucar Omar Niang toftal ci discoursu njabootu Niass Serigne Mbaye Niass ridwanullahi alayhima toftal ci discours porte parole lu faydatu Tijaaniya Cheikh Mouhamadoul Mahi Seydi Aline Cissé programme 11 dina am panel ci arabe français ak wolof panel bu njëkk bi dimension diplomatique dans la mission de l'imam de la fayda Tijaaniya maanaam xaymaab tëlluwaay diplomatie ci mission wu imam de la fayda Tijaaniya Alhaji Ibrahima Niass deuxième bi la fayda ans après un état des lieux juróom-ñeent fukkeeli panel bi kitaabu nafahaat alqudusiya bu cheikh aboubacar al musanna ibnu alhaaji abdoulaye Niass radiallahu anhu ñeenteelu panel bi ci bés bu njëkk bi danañu waxtaane téere professeur oustaz ibrahima mahmoud diop bi ñuy wax risala ilal kuwet bi mu bind ci cheikh ibrahima Niass ak mazhabam ak jàngale cheikh ibrahima Niass ñu toftal ci juróomeelu point bi ñaareelu bésu symposium bi alxames fukki fan ak ñaar ci weeru septembre bu 16h30 jotee thème bu njëkk bi danañu ci jàngat kitaabu nujumul huda ci dundab cheikh ibrahima soutenir la production intellectuelle de l'école Soufi di Cheikh Ibrahim Niass di Nourul Kamal de Thierno Assane Deme liggéey bi lekkool Soufi bu Cheikh Ibrahim ñas ñi jëlee jàngat boobu ci téere bi di Nourul Kamal bu Thierno Assane Deme ñetteelu thème bi analyse téere professeur Oustaz Ibrahim Mahmoud Diop bi ñuy wax Risala ilal ba beneen panel bi dinañ ci waxtaanee AES ak CEDEAO crise bi ci am ban jàngale lañ mën a jële ci jàngaleem Cheikh Ibrahim Niass pour saafara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 sayyidina wa nabiyina muhammad ibni abdillah rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa radiallahu taala an ashaabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim yaa himmatu cheikh waxturi lana bi hadha al-ma'dari wal ta'tufi bi nazratin ta'ti lana bi safar mbokki internet yu CMF média de la fayda ñu ngi am mbégte ak kontaante ànd ak yéen ci seen programme gàmmu international bu Medina Cheikh Ibrahim tabarkalla macha allah comme ni ñu leen ko diggee woon ne incha allah ren convention bi dañoo am initiative dajale diis organes yëpp ñuy jëlandoo ñenn ci kilifa yi nga xam ne jàppandi na pour ñu mën a am seeni kàddu pour mën ko wesaare ci àddina bi yëpp liñ ci namm mooy ñu jàngee ci ay dars surtout mag ñi nga xam ne. tabarkàlla macha allah fekkee nañ Cheikh Ibrahima mu yar leen jàngal leen former leen xamal leen yeneen xam-xam yoo xam ne sax boo ko seetee ci téere yi doo ko gis tey nag tabarkàlla macha allah CMF di am mbégte ak kontaante dajal kenn koo xam ne kenn la ci référence kenn la ci delluwaayi daara ji di alfayda al ibrahimiya wala ci école bi nga xam ne mooy alfayda al ibrahimiya Euh, muy cheikh Mouhamed Arabi ibnu cheikh Alhaji Mohamed Zeynab nekk boroom xam-xam waaye nekk boroom xam-xam boo xam ne mag ñi am xam-xam ñoo hóolu xam-xamam maa ngi fàttaliku jëmmi bés waa RTS dañ ñëw wala waa l'observateur ñenn ci journal yi nga xam ne dañuy ñëw bu gàmmu jotee di def baax ñu boole nag suma xarit professeur Alioune Seck mu dem ci benn kilifa mu ne ko ñaar laa lay jox. ne demal si ñoom kenn ki mooy Cheikh Seydi Arabi ibn Cheikh Alhaji Mohamed Zeynab lépp lum la wax nam demee la la koy waxee te du ci yokku te du ci wàññi keneen ki mooy Serigne Daara Ousmane Ndiaye yal na yàlla yokk leeram mu ne ko ñu daal óolu naa seen wax óolu goo xam ne soo demee ci ñoom danaa am lu ma neex yaakaar naa ay yoon yoon nit ñaa ngi ñëw ci moom pour di jël xam-xam tey nag sëriñ bi bëgg nañoo ñëw dellusiwaat ak yow ci gàmmu solo geek ci aju ñu la jox benn tem ci loolu waaye dañuy wax gàmmu rek yow suñ la waxee gàmm xam nga fu ñuy génnal suñ ñaareeli point ñu bëgg a dikk nga fàttali ñu taxawaayu Cheikh Ibrahima parce que thème actualité la tey képp kuy jullit wala ngay nit bu normal sax boo gëmul yàlla lay di xew fële ca Quds lay xew ca Palestine yaakaar naa métti na la loolu bu amaan te fekk Cheikh Ibrahima ba mu amee boog fekk Cheikh Ibrahima mu ngi ci xëy di lan moo ci doon taxawaayam. ak naka la doon jëflante ak ñooñu waa Palestine alaax Palestine daal ak Medina Cheikh Ibrahim su mën nañoo wax loolu rek ci tënk lool kon sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziara daal di lay jox nga nuyu mbokki internet yi nga xam ne ñu ngi lay seetaan fu nekk si àdduna bi incha allah. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmaani arrahim maliki yawmi din iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdina siraatal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 wa rahmatullahi taala wa ngi sant yàlla beneen yoon di julli ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa moom mi nga xam ne ci iidu milaadam ci lañ nekk di ko feetu fii ci dëggu dëkku soppeem di Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu yaakaar naa dëkk bi rek ni mu ko tuddee doy na gàmmu almadina mu dippee ko almadina al munawara gële nga xam ne fala la soppeem ba tëdd mu wax ci medinaam gii loo xam ne ma nga jumoo ca medina googa te dinañ ci ñëw waaye balaa ñuy dugg ci waxtaan wi e ñu ngi ndokkeel ki nga xam ne tey e, mooy xalifaam bi fi toog toogaayam uutu ko fi uutu fi maamam Haji Abdoulaye radiallahu anhuma ñu ngi koy ndokkeel di ndokkeel mboolem ku nekk ci moom te aju ci pays bi moo xam yaa ci biir réew mi ak fu ñu mën ne ci goxi àddina nga xam ne tas nañ fu ne ci àddina bi tey ñu ngi koy ndokkeel di ko ñaanal yàlla yokk fanam yàlla gën koo dëgëral yàlla yokk ay maridam ñuy jumu ci moom euh, ci barke baayam radiyallahu ci barke Cheikh Ahmad ci barke Alaaji Abdoulaye Niass gannaaw bu ñu ko ndokkeelee ñu ngi ndokkeel imaamam di Seydi Cheikh Ahmad Tidiane ni Mawlaana Seydi Alioune Cissé al Khalifa ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla may ko wér yàlla dëgëral ko yàq yàlla yokk fanam yokk ay madadam naka noonu la ñuy gongeeku ba agsi ci al mutahaddis rasmi di rakam di genn wàllam di Cheikh Mouhamadul Mahi eh, mi nga xam ne moom itam <clears throat> mi ngi topp ci tànki ay maamam ak ay baayam ak ay magam ñu koy ñaanal yàlla moom itam yàlla may ko fan yàlla yokk ko wér eh, Cheikh Mouhamadul Amin mi nga xam ne moo méngoo gàmbo gi at yi yëpp moom lañ ko dénk mu yore ko ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla yàlla yokk ko yàlla may ko wér noonu lañ koy ñaanalee Cheikh Mouhamadul Makki moom itam gis nañ ko moo commencé moom lit gi ak ñun yàlla nañ ci dugg ak moom ci bisimilahi rahmaani rahim génn ci ak moom ci alhamdulilahi rabbil alamin waaye balaa ñuy sori ki nga xam ne tey mooy suñu mag ñun ñëpp di Sayida Ruqiya bint Mawlana Cheikh Ibrahim eh, radiallahu anhu nga xam ne bàyyee ma ko tuddee woon eh, Fatatul muy borom xam Euh, di ko am taxawaay ci diine di ko am taxawaay ci pays Cheikh Ibrahim moom it ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla may ko wér naka noonu lañ koy ñaanalee mboolem ay ay seen mbokk euh, ak seen i muqaddam ak seen i fu ñu mën a ci àddina euh, weer wi ñu ne muy rabiul awal di gàmmo fii ci Medina ak mboolem pays yi aju ci Medina tey ci bitti fu ñu mën ñu ngi ànd ak Cheikh Ibrahim di dundal sunna si nga xam ne sunna xasana la sunna xasana la bu ko ñeneen tuddee neneen ñàkk dégg diine la waaye yonentu sallallahu alayhi wa sallama léppam tagg la te yàllaa ko yàllaa njëkk a ci moom moo ko njëkk tagg moo ko njëkk a yëkkati eh, Cheikh Ibrahim nag pour ñu wax ci moom ci gàmmu moom moo moo moo moo ndokkeel boppam ci gàmmu ñëpp ngi koy wax ñëpp ngi koy tardiit fu ne ci mboolem langue yëpp yu uute hani an li ibrahima boobu ñëpp bokkal lañ ko fi mu ne laaxa hilaaluhu hilaalun badaali koy tari te wax nañ dëgg wax na beneen sax lim ndokkeel euh, weeru gàmmo ndokkeel ci boppam dafa bari taraa hilaalun aw jamaalun fa abhatu mata laaxa wajul haashimi wa asmutu tabaddaa fa ahlan summa sahlan wa marhaban bi waccin bi aachal baraya fa quwitu moom itam ndokkeel yu di xasida bu neex gis nga boobu sax mi ngi dugal benn kii comme am na ñeneen ñuy jaamu leneen lu kii li muy màggal màggal yonent jàppewu ko yàlla jaam yàlla bu yàlla tànn la gënal ko ci lépp lu mu bind wala moom la moom la moo tax mu bind boolem lu mu bind waaye dañ gis nga ba mu ne ba mu bi achal baraya wa quwitu dégg nga muhayyan ka badri ka badri timmi wa shamsi fasjudu li xaaliqihi marral jadidayni waqnutu am nañu jaamu yeneen ay jant ak yeneen ak yeneen ak yeneen moom mu di la wattandiku loolu moo mu tax laa génne ci loolu yow waaw ne la ak li muy màgg màgg daraja li muy màgg màgg itil yow su jóotalal benn borom rek muy yàlla jaamul benn borom muy yàlla waaye màggalal kii nag ndax moo tax nga xam yow nooy màggale nooy màggale yàlla ak nooy jaamoo yàlla mu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi sant yàlla bu baax ndax wa daaratil ayaam yàlla dellu si at na bés yi ci ñun ñu fekkee at gàmmu am nañu ko feetoo nag ñun daaw fekkee wuñ ko ren yàlla yàlla yóbbu leen ci dund boo xam ne moo leen gënal dund bi ñu newoon ak ñu fii ci àddina ci barke yonent bi ki ci mugg rek mooy suñu suñu yaay démb al barke démb lañ ko gunge muy Seyda Roqeetu Jaw yàlla yàlla yëkkate ay maqaama ki darajaam yéegal ko ci martaba sëriñam ak ay wajuram yaa rabbi yàlla na ko yàlla defal loolu ak ñam fay fekk ñëpp ak ña ko fa xala fekk si ëllëg euh, cheikh bu ba waxee Cheikh Ibrahim ak gàmmo doo xam fooy tàmbalee ndax moom dundam lépp gàmmu la dundam lépp gàmmo la dundam yëpp yonent bi la sallallahu alayhi wa wax na ko ci xasidaam bi mu mujj def bu dul marché bi mu defal Misri xaw ma man xasida bu mu taggee yonantu bu mujj xasida boobu mu defee woon ko ci Paris muy saqaafatu Ibrahima wala ilmu kulluhu madixul imaamil haashimi fadluhu moom nee na culture am njàngam xam-xam ak lépp xam-xam lépp mooy du dara lu mooy tagg yonante bi sallallahu alayhi wa ci ay jikkoom ak ci ay meloom ak ci ay ngëneelam xasida boobu yaakaar naa mooy xasida bi mu mujj a def entre 73 bi mu koy def ma nga Paris dinaa ci nettali sax benn benn benn xew-xew euh, bon boobu maa nga Qatar di jàng maak euh, Cheikh Ibrahim dégg nga suma rak moom mu jaar Paris fekk bàyyi nga Paris fa la defee xasida boobu bàyyi bind ko waaye mu sant Kabir fay nekkoon a ci def ñetti nusxa euh, ay xaritam yu nekkoon Qatar ay sal kawaar yi ñuy xam Qatar xam nañ ko ci jamono xalifa euh, bi Ahmad Alassane moo mu diiru maktabam Baye xarit Baye dafa bëggoon Baye ba fa Baye demee bu ko lool euh, Baye adressé ko ci benn benn xasida ak ku ñuy wax Mouhamadul Ansari ak Ibrahima al Ansari ku ci nekk mu yónnee la ci benn nusxa jox ko Cheikh Ibrahim mu ngi nii di ma dégg ne ne bu ñëwee na ko teg ci suma loxo ma yë ma yëtal ko ko ñooñu alors Cheikh Ibrahima ñëw indil ma ko bi mu ñëwee teg ko ci sama loxo am naa hittey barkeeb ki ma yónni ak itteem xam nga mu diiru maktabu amir dégg nga yow ngay simple étudiant koo xam ne alors <laughs> amuloo audience xamuñ la dégg nga waaye ma sukkandiku nag ci ci ci barkeeb ak iteem bés boo xam ne euh, madde lu xalaat bi lañ am bon du soralu ma ma ma ma jël ma jël oto dem ma sol suñu yëre awsa yi nii ak yeeg nangam nangam ñu gis ma foog ne kii diplomate benn benn diplomate Nigérie la ma ñëw bi ma ñëwee ci xasru bi ne leen Issa laa soxla dégg nga ñu ubbil ma ay ay ay ay ay étape la ay post la ñu jël ma ci benn kii benn benn jips yóbbu ma ci beneen beneen poste ñu jël ba ci bu mujj bi mu ànd ak benn gendarme mu ànd ak man ba ci ba ci buntu euh, bureau bi secrétaire bi annoncé ma mu ne ma yegsil yegsi ma ma jàmbalante ak moom mu laaj ma baay ne ma ne mu def mbaa deful dara nangam nangam man nettali ko yëpp ma ne ko mi ngi ci jàmm alhamdulilah nangam nangam nangam nangam mi ngi lay nuyu mi ngi nuyu sumul amir ma ne ko moo ko bind lettre bi waaye moom daf ne naa la ko jox ma yëgati ko teg ko ci loxo mu ne moom ci loxoom mu ne ma dana àgg ci loxoom incha allah waaw moom àgg na àggale na ko ci ci amir bi amir tontu na baay bi ma ñëwee vacances la ma bàyyi wax ne ma ne ma Issa de tontu na ma waaw xalifa tontu na ma ne ma Mouhamadul Ansar rek Ibrahima Ibrahima tontu na ma waaye Mouhamed jotuma lettre am fekk am naa information ci ne dañ ko yónni mission mu dem Allemagne ma ne ko googu dafa dem Allemagne nekku fa moo tax bon loolu yëpp te mooy mooy xasida bi ba lay wax nii waaw euh, ci biir xasida bi dama ciy nettali leneen ci lépp ci gàmmu gi la euh, xam nga ci la bàyyi waxee ne euh, raaytu rasulallahi jahran wa yaqzatan bi baari zahlakal mahallu mahalluhu kabir fay comme moo bàyyi àndoon muy borom xam-xam boo xam ne am na yu ko bàyyi euh, euh, seedeel ci Raxla Konaakiri dama daan wax ak moom toujours di ko laaj ba mu amee ay iskaaliyaat ci yu bàyyi wax wala nangam nangam nangam yooyu ma ne ko bàyyi li wax noonu comme yaa ngi nekkoon ak moom Paris nu mu demee mu ne ma docteur yi euh, dañ ko joxoon biñ ko seetee ba pare dañ ko ne woon bër bu set na doxantu ci ci jardin bi nekk ci hôpital bi 30 minutes lu mu néew néew ci ngoon gi mu ne ma benn bés ñu ànd génn mu jël loxoom bu teel bi teg ko ci sama mbagg nii ñu ah ñuy ñuy ñuy doxantu muy waxtaan ak man ba mu yàgg rek mu ne ñu seen benn tubaab boo xam ne dégg nga wasiim ku rafet koo xam ne néew danga nga gis ni ku mel noonu waaw mu ne rek mu mu sàndi ma mel ni sa feebar waaw waaxu waaxu waaxu bu tàng ñëw rek tubaab bii tam mel ni dafa xamoon bàyyi bu yàgg waaw mu ne ñu ñu ñu ñu laxasante mu ne doq ko mu doq ko mu doq ko mu doq ko mu ne ñu tàggoo bàyyi amee xaal boo xam ne jooy jooy métti yow dugg rek kii mu ne ma ci ëllëg si bii ma xam ne tubaab boobu yonent bi la <laughs> loolu <laughs> dama dama koy wax bil ba parce que ci gàmmu gila la nga xam maanaam baay ni mel ak yonent bi ak nim nim nim nim dundeek moom wax na fii ci gàmmu ñëpp di dégg olof lay wax ne yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallama mooy buntab yàlla kenn mënta àgg ci yàlla te jaaroo ci yonentu bi jaam bu xeebu bii nag di wax ak yéen mooy buntab yonentu yàlla kenn du àgg ci yonentu jaaroo ci moom wax na dëgg alors euh, ban kooku fi mu ci yonent bi ci ci ci ci mbëggeel ak ak ak topp ko ak liggéeyal ko dégg nga ak bëggloo ko ñaata million bëggloo ko ñaata million eh ni ñu baax ñu bëri nañ wala yàlla yàlla may bëri nañ lool ay cër ñu ngi leen di taqdir ñoom ñëpp di leen ixtiraam ndax suñ sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahim eh, Cheikh Ahmad Tidiane ba tey Cheikh wala Cheikh Ibrahim jumuma Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane yi anhu daf ne taalibi Tidiane wax ne buñ benn wali buñ istihaana benn wali buñ xas benn wali na mu ne man ankara waliyan min awliya illahi fa ka annama ankara jamiahum mu ne li anna wijhatahum waxida wa mashrabuhum waxid moo tax euh, kuy taalibeb tijaan moom bon yow loolu dog na ngant ci ngay jéem a def tataawul ala awliya illahi dégg nga ñun bokkuñ ci loolu bàyyi sax dégg nga moom loolu du madrasa moom moom dafa dafa dafa dafa dafa fonk yonent bi ba nga xam ne ñooñu nga xam ne liggéeyal nañ ko sax dégg nga ba am ci moom cër seen seen seen jaboot yi dégg nga ak seen seet yi ak seen doom yi kum ci gis dégg nga daanaka dafa lay wàcc wàcc waayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam danaa koy nettali euh, gis naa bàyyi daraam tuutiwut lu mu def rek jàngale la dafa am benn sëti Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu bu daan ñëw fii ci moom xaritu alaaji Ousseynou la woon bu génnaan ci alaaji ci bàyyi rek ci alaaji Ousseynou lay ñëw euh, ku noppi la woon dañuy wax de ci sëtam yi gën a niru Sëñ Tuubaa ci la bokk dafa am benn gàmmo gàmmuwaat bàyyi di gàmmuwaate ci coopérative ci bi mu demee ba nekk ci biir xisa bi délégation officielle yi di ñëw nii ñu ñu dégg seen coow li ci ci ci cee eh, kii yooyu sireen yeeg bu ñuy ñëw rythme ñuy àndal rek am na awsa bu fi nekkoon ñu di ko wax Bachir awsa moo daan organisé moo amee yooyu mu ngi ci biir biir tànt bi xam na ne ñooñu di ñëw il faut ñu utal leen fu toog muy xool borom mbubb yu oyof yi ci tante bi yu mel ni man dégg nga kan la ci war a yëkkati mu waaxu rek comme Cheikh Mbacke ni ku tuuti la woon nii mu waaxu rek utali ko. bàyyi ci xissa yi de waaye dafa dafa dafa dagg xissa bi dafa arrêté daal di oo Bachir Awsa bi mu ñëwee ba tiim Cheikh Mbacké daf ko oo ko ee Bachiru mbaar mi yëpp tiit mu ne ko xam nga ki nga bëgg a yëkkati maa ngi xool boo ko yëkkatee koo fii taaj <laughs> moom <laughs> moom mu ngi xool Cheikh Ahmad Bamba xam nga itam xayru maaqul dégg nga nga tàntal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dégg nga di wax ci moom doomam doomu xaadimu rasul ñëw toog ci sees gi di ko yëkkati moom foofu lay xoolee foofu lay xoolee pour nga xam rek dégg nga màgg màggal gi màggal gi nga xam ne màggal na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba nga xam ne képp ku aju ci moom wala ku ko mës a liggéeyal rek sa sët ak say doom ak nangam ak nangam naa wàccuwaay bu kowe ngay am ci ñoom ñun xam nañ ci dara dañ naan gis fii léeg-léeg ay nit ñoo xam ne ñu yemaa yàlla ñuy doon ngir comme comme man rek waaye dafa leen di yëkkati dégg nga teg leen ci kaw a kaw a kaw fekk seen usul lay xool seen maam yi ak seen baay yi lay xool waaw euh, Medina gii moom ni ku rafet la woon ku tabe la woon ku bëri yërmande la woon ni ku amoon na sax la ku sawar la woon surtout ci jaamu yàlla waaye su gàmmoo ñëwaan yooyu yëpp dafay mel dañ ko doublé ci moom taar bi dafay gën a rëy dafay gën a bari dégg nga tabe gi dafay gën a tàlli dégg nga eh, bashashatul wajhi bi dégg nga jamaal bi dégg nga ak sumawul xuluq bi yooyu yëpp dafa yokk ci moom rek dañ koy ful ngir lan ngir rek dégg nga weeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dugg ak juddum gi muy gi muy gi muy màggal si te daf daan jéem a dund loo Madina yëpp xaal boobu di wax ne dégg nga gàmmu gii maa ngi koy fàtte 1967 fàtte wu ma fàtte wu ma at at mi daf ne yéen ñëpp dégg nga na ngeen na ngeen bale seen kër yi ngeen génn seen kër yi te balaa ngeen a balaa ngeen a bale kër balaa ngeen a euh, setal kër yi na ngeen setal xol yi njëkk ngeen pare pour tatagal gane yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ndax ren waa malul ala dañuy gàmmu si wallahi ak waxtu yi maliw laala ah, dañuy dañuy dañuy gàmmoo si moo tax na ngeen na ngeen na ngeen rafetal na ngeen bale kër yi dégg nga ngeen bale dëkk bi te ngeen soxtal seen xol yi waaw ngir ngeen mën a tatagal gan ñuy ñëw gàmmu gu réy la woon ngeen ko ma yokk ba ci benn na ne yonentu teew na teew na teew na teew na ci gàmmu gi nu nu nu daaw teewe dégg ngeen ko yéen ñëpp wax loolu e moom nag dafa am yu bari yu ko yàlla dimbalee yoo xam ne dimbalee wu ko ñu bari arab yi dañuy wax ne al insaanu ibnu bi at atihi moom bi bi nga xam ne ci la juddu dégg nga dafa am ay mu yoo xam ne dégg nga ñoo ko yàlla am na lu mu namoon ci moom démb de waaye bi bi nga xam ne ci la juddoo dégg nga nga xam ne yàlla moo ko xëyi al asbaab yooyu pour mu mu pour mu feeñee foofu muy kër baayam alaaji Abdoulaye dafa nekk bii a boo xam ne euh, bii buñ buñ buñ buñ ay ay garab bëgg yàlla ak yonent bi rek dégg nga moo fa moo fa sax leneen néew ba lu may loolu parce que maamam balaa ma wax bàyyam sax mais maamam amal ñes ci boppam dégg nga dafa nekkoon kenn lu diine dégg ngeen bàyyi ne ne moo jàngal baayam sanaa yëpp mu jàngal mamalaaji ba mamalaaji di wattu alquran daanaka te mos a gis kaamil fu ñu ko bind teg takk ko teg bàyyi ngi wax ne mu ne moom maam bi mu bëggee jël tariqa tijaan dafa ñaan baayam ndigal bàyyi ne ko baayam jox ko ndigal ne ko baax na waaye man alquran mooy suma wirda mu ne maam ama ñes ci benn tariqa moom jëlutoon tariqa man mooy suma wirda naa benn bi sax benn am ku may nettali moo wax ne ma tudd benn kilifa ne moo ko wax ne ko bàyyi ne na euh, maam baayam xaadir la woon ne ko man li ma jëlee ci baay du loolu te ci moom laa ko déggee waaw <laughs> loolu ma déggee ci moom ñeme naa ko ñeme naa ko nettali ma ne ko te yaakaar naa ne boo doxee ci taarix da nga gis li ma la wax nii waaye <clears throat> la ko la ko la ko firnde Amar Samb moom nga gis mu bindoon docteur Amar Samb bindoon ci ci ci mamalaaji ci kër mamalaaji am lu mu wax bàyyi jàng ko yónnee ko laay ne ko ne ko tontu ko wax ko baayam yëpp jaar nangam nangam nangam alaajab laay bi bi ngi ci boo boo amee risaala bi alaajab laay tontu Amar Samb da gis may wax nii nga alaajab laay muy wax Amar tontu Amar Samb daf ne ko sama baay wax na ma ne ma dégg nga baayam aman ñas mi ko jur nekkutoon moom ci benn tariqa bi mu koy bi muy laaj baayam pour mu mu jàpp tariqa tijaan daf ko ne man lu baax duma ko aaye kenn waaye man alquran doy na ma wirde man alquran mooy suma wirde kooku wax ma ko ne ma li nga waxoon de <laughs> gis naa fu ko alaajab laay bind te bàyyi ko ko wax ma ne ko waaw ah, loolu ma ne ko loolu mooy dëgg li ma lay wax nii man ci bàyyi laa ko déggee tan dégg nga ah, bon aman ños moom nga xam ne tey moo jur alaajab laay balaa ñuy wax alaajab laay ci yoom sax dégg nga noonu la meloon dégg nga noonu la meloon ci xam-xam yu bari yu maamalaaj abidaayaat yëpp moo ko jàngal maamalaaj moo ko jàngal ci xam-xam nga door a wax maam alaaji dégg nga mu doon mu doon mu doon mu doon xalifa dégg nga xalifa yonent bi doon xalifa Cheikh Tidiane ken man nekk xal wér na ne xalifa Cheikh Tidiane la kenn mënta nekk xalifa Cheikh Tidiane te doon nekk xalifa yonent bi waaw alors mu amoon taxawaay bu rëy dégg nga bàyyi sax julli ñaaral na ko ne ne ne ne lazala xawsan ifarriju dégg nga euh, baayam yar ko jàngal ko jëmbat ci moom loolu gannaaw na ma na ma yàlla jazallahu cheikhan qaadani li widaadihi jaza karimin neama cheikhan wa murtada naa loolu la wax feneen mu ne eh, am na feneen fu mu waxee ne eh, wa xubbi eh, saxiixun saabitun mutawaatirun xafawtu abi qaasaahu wa huwa kabiru mu ne cofeel gi mu am ci yonent bi nee na dafa dafa dafa wér te dafa sax mi ngi ci roye kan baayam la ci roy te fekk sax baayam bi muy sonnee mbëggeel googu booba mag la ban kooku dafa am cosaan moo tax ma ne yàlla daf koo gunge ak ay xilaat yoo xam ne ñu bari amuñ ko xam nga ku day ni moom tey ci xam ak ni mu mel dégg nga amul benn sëriñ boo xam ne mën na laa mën mën na laa ñax ci dara dégg ne mas ngaa ubbi benn benn benn safa ne ko jàngal ma lii wala nangam nangam lépp lu mu xam gannaaw li ko yàlla xamal ci bàyyam la ko xamee ci la ñuy jàng loolu boo ko doon wër tey balaa nga gis ku mel noonu dafay jafe dafay jafe alors mbugeel googu bon moom daf koo doon dafa nekk asaala ci moom dégg nga mu dund ko nag mu dund ko dégg nga dëggal ko ci boppam dégg nga ba pare fexe ba dëggal ko ci ñeneen fexe ba dëggal ko ci ñeneen baay dégg nga euh, wilaayaam dafay walle dafay walle wilaayam xam nga moom euh, taalibe yu bari ñu bari tey euh, walla moo wax ne sëriñ yu bari góor góorgóorlu nañ ba yàlla jëriñ leen def ci ñoom dara waaye ndax mën nañ ko toxal ci ñeneen ndax mën nañ ko toxal ci ñeneen maanaam déedéet maanaam déedéet mën nañ mën nga mën nañ laa gërëm ñaanal la barkeeb liggéeyal ba la yu topp la waaye nag li muy dund yow li muy dund ci yàlla dund ko ci yonent bi dégg nga ak yeneen mu toxal ko ci yow ba nga mujj di moom loolu la ko yàlla defal te defalu ko kenn xam nga ki nga xam ki nga xam ne bi bi bi mu ganee àddina rek la wax ne waqat waqat tëmma fatxi ànd mahdi waqat anat jamiu rijalil xaybi taxta qadaayi fa maa qataahu fi charqi wal garbi farfadan ila makkatin illa li chammi shadaa'i wa limla waayni lyowma aynu muhammadin sara sirruhu fi haykali wa riwaayi wala wa riwaayi xam nga loolu dégg nga xamadu euh, sirra xaatimil wilaaya jamaatu bayna zawqi wa diraaya dégg nga Euh, bu ñuy wax ci baay foog ñu wax ci Cheikh Tidiane foog ñu ci yoonu benn la dégg nga benn la xam nga loolu euh, ku ko wax ñu nattu la dégg nga muy dëgg xam nga ne waxu ay sataxaat waaw waxu ay sataxaat ba mu wootee ne kenn duma ma jublu dégg nga lu dul dégg xam nga yàlla oote boobu ba nga koy wax vingt dégg nga ba 75 ans maanaam wax toujours ma ne li ma neex ci moom dégg nga ay waxam ak i jëfam ma sawee diante gis nga lii téere bi ñuy wax ne moom la jëkk taalif muy ruuxul ëdëb dégg nga bi mu koy taalif ci ñu ne 21 ans lam waxoon dégg nga ne maa ngi leen di dénk tariqa tijaan nasihatun min nii dégg nga ilal ixwaani fal tumsiku tariqata tijaani tariqa mahdil fadli wa ridwani ussisa bi sunnati wal furqaani lam ca waxoon loolu ba mu demee ba London itam dégg nga wala ca Paris ba muy bind wax ba itam loolu la waxaat uusikum bil wirdi tijaani fa innahu kanzun lil ahyaai wal amwaat nga xool nag diggante bi ni mu soree nga xool diggante bi ni mu so ñaar fukki at ak benn ba soixante-quinze ans li nga waxoon wareet wareetiwut boo doon dox ci siiratul awliya ma taqdirina wa ixtiraamina lahum dégg nga doo ci fekk ku dox dox boobu ñu ci nekk ñu ci bari ci ñoom maa jalalati qadrihim dégg nga soobu nañ yoon ba mu yàgg ñu wàcc ko soobu weneen yoon jël nañ tariqa beneen tariqa ba mu yàgg ñu wàcc ko wàcc ko bàyyi beneen dugg ci beneen tariqa mësta am ci loolu loolu mësta am ci loolu ci yoonam e wax naa ne ni mu bëggee yonent bi sallallahu alayhi wa sallama dund na ko dunduloo na ko ñeneen dund na ko dundaloo ko ñeneen moo tax taalibeem ba ca kanu euh, saadi kaafanka wax na dëgg wax boobu mu wax ne fexe ba bëgguloo nit ñi Cheikh Ibrahim bokk na ci jaam yàlla yi gën a màgg taxbibu qutbi l asri yu siyaada ila al wara min akbari l ibada ki wax du jaayil ki ko na ñu laxas dégg di leen di leen di leen di leen seeti ak di leen di di jumu ji ci ñoom seenuñ ko sax ci xam-xam seenuñ ko sax ci xam-xam seenuñ ko sax ci xam kooku te ñooñu dara bu fekkee lu ñuy jàngale wala nangam nangam nangam li yonent bi wax ci ay xadis ay nangam ak nangam amul dara lu ñu ciy laaj dégg nga waaye li leen indi ci bàyyi du loolu xam nañ ne am na lu leen mot lu leen manqué ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loo xam ne ci moom rek lañ ko mën a amee moo tax ñuy dagg ay alitunga di jël ay billet avion di ñëw fii seet Cheikh Ibrahim maa ngi fàttaliku am na benn benn benn gàmmu gannaaw El Hadj boobu mag la moom Sani Kabank te wéerut El Hadj Abdoulaye bi bi ko séenee ci ci bi daf ne ko yow tax nga kenn amul ngànt kenn amul ngànt ngir ni ni magee ak fi mu tolloon ci feebar waaye xam nga <coughs> euh, mbëggeel dafa nekk tooke mbëggeel dafa nekk tooke. wax naa ko keroog waykat bi moo ko wax ida kaanati nufuusu kibaaran taayibat fi muraadiha al ajsaadu waaw ñi nga xam ne seen bakkan yi dafa rëy te yàlla rek la bëgg ñooñu il faut jëmm ji foog ñu sonal jëmm ji waaye ñoom sax duñ ko yëg duñ ko yëg euh, Cheikh Ibrahim radiallahu anhu euh, mbëggeelam ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama duut lu ñuy lu ñuy taqdir du lu nit mën a wax nii di ko taswir nga di ko gis nii ci suura ci suura moom sax moom sax mënu ko <laughs> waaw fi mu toll dëgg dëgg dëgg dëgg ci bëgg yonent bi déedéet loolu loolu loolu doy waar la ñun suma mas gi ñun nga xam ne dañ ko daan tooñ léeg-léeg dégg nga euh, bi weer wi ci lañ ko daan jéggalu loo mën a def <laughs> dégg nga lu mu la mere mere mere bu gàmba jotee boo ñëwee jox ko loxo rek moom fàtte génn na ci loolu waaw ndax jàpp na ne weer la woo xam ne kenn waru cee mer kenn waru cee mer loolu nit itam kenn waru cee loolu nit itam ala ay yëti xaalin <coughs> wax ci ci moom waaw ak ci gàmmo daa bay jafe gis nga maa ngi gis fii sax xam nga raxa xam nga Conakry raxal Conakry bi bi ci nekkee di tukki sori lool ci tukki mi ba weeru gàmmu jublu si ndeysaan dafa jàngoro ja dafa daal yëngatuwaat mu mu mu mu dagg tukki bi waaw mu dagg tukki mi jëm si at waaw lii la lii la lii la wax daf ne daf ne fii ju ci rax la Conakry ñëpp a ngi koy jàng waaw daf ne waqad dana rabiu xayri naasi bahjati nafsi min bani iliyaasi muhammadin salili abdillahi walastu an taazimihi bilaahi xubbi lahu yasdaadu kulla xiini amuutu bil xubbi wa daa yuxiini waaw dégg nga de muhammadun bu la neex nga ne muhammadin wa ahmadin wa xaamidi wa aaqibin alayhi salla alwaxidu wala nga ne muhammadun wa ahmadun wa xaamidu wa aaqibun alayhi salla alwaxidu mu ne nag rajaatu yawmi rajaatu yawmahu ila kunaakiri qasdi madinatu zawil basairi man kaadaha fa laysa daa bi daairi jarrat zuyulaha ala alxawaadiri jarrat zuyulaha ala alxawaadiri li annaha mazharu faydi alxaatimi fiiha rijalun zawquhum kalxaatimi sara laha sirru madinati nabi xabasaha tam fi bila tarayubi mu ne weeru rabiyow daal jege si na weer wi nga xam ne mooy taaru sama bakkan dégg nga mooy taaru sama bakkan ci ki nga xam ne kan mi ngi bàyyi ko mi ngi bokk ci doomi Ilias Ilias ci maam yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam mu ne kooku mooy kan mu ne mooy Muhammad mi nga xam ne Abdullahi mooy baayam mu ne kooku nag man du ma du ma fa mukk ci màggal ko wala su an taazimi billaahi mu ne te su ma mbëggeel xubbi lahu yasdaadu kulla xiini su ma mbëggeel ci moom dafay dooleeku daayiman amuutu bil xubbi wa daa yuxiini mbëggeel googu ci laay dee e, ci laay ci laay ci laay dekk itam moo tax mu wax ne ci ci beneen xasida ne idan sarafa al waaruuna an dafni jussati baqitu bihi ahya li yawmi liqaa'i waaw ñi may rob waxtu wuñu wax buñ ne rob nañ ma buñ ne rob nañ Ibrahima ba bare dégg nga ba ba dëddu wane gannaaw man damay des dégg nga ci yonent bi dund ci moom ba bés ba ji yawma liqaa'il akbar waaw dégg nga mu ne kooku ba tey mu ne mooy Muhammad mooy Ahmad mooy Hamid mooy Aqib mu ne yàlla mi kenn yàlla na julli ci moom amin mu ne nag bés boobu nag ci laa retourné dégg nga jëm si Conakry waaye jubluwuma Conakry de fan laa jublu Madina gi nga xam ne borom borom borom borom leeri leeri eh, xol yi ñi nga xam ne dañoo amee gis a xol Madina googu lañ dëkkee waxut bët bët mën nay xool te du gis waaw mu ne Madina googu nag képp ku ko fexeel man kaadaha fa laysa daa bi daahiri képp ko fexeel ne la wóor na doo doo doo tonoow mukk ci àddina mu ne ndax lan mu ne jarrat zuyulaha ala alxawaadiri mu ne Medina googu diri na sembaanam ci kaw njënn yëpp njënn yu mag capital yu mag yëpp Medina diri na ay sembaanam ci kaw gis nañ ko fi mu ne goxi àddina bi yëpp fi mu ne des na tuuti lettre boo am bu jëm ci continent yi boo ko indee fii Medina dana am koo ko jox mu yóbbul te 46 la waxoon lii de 47 waaw mu ne mu ne Medina googu mooy ba tey mooy lan mu ne pour lan Medina googu mel noonu mu ne li annaha mazharu faydil xaatimi fiha rijalun zawquhum kal xaatimi mu ne Medina googu mooy feeñu waayu fayda Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu bi nga xam ne mooy xaatimul awliya waaw mu ne ay góor a nga fa ñoo xam ne seen mos yi ka Ibnu Arabi al Xaatimi la mel waaw loolu teggee ni wax la waaw moo tax mu loolu waaye am na ñoo xam ne xam nañ ne ñoom ram nañ ko waaw mu ne Medina googu ba tey sara laha sirru madinati nabi xabasaha tam fii bila tarayubi mu ne mbootam Medina mu a war a googu <coughs> mu ne rañaan na ñëw ci Medina gii mu ne ay tilimam yëpp dafay dafay dàqu ci lu benn benn deng deng lu benn sikk Euh, namm tilim ak mbedd nii ku amee yeneen jikko yu bokkut ak yim taxawalee Medina gii ñoo ko tax di wax yàlla nañ ci yàlla musal e su euh, ñun euh, xamuñ sax lu ñuy lu ñuy lu ñuy lu ñuy lu ñuy wax lu ñuy wax ci lii xanaa ñu ngi li nga doon wax noonu. <coughs> Oustaz Basir yaakaar naa. émission yi ñu doon am nii la doon day waaye waxtaan bi dayob waxtaan bi ak solo bi yaakaar naa moo ñu yóbbu fii ndax li ëpp ci wax di mooy maa fekkee wala bind baa ngi nii loolu nag am na solo ci wax de fekkee wala bind baa ngi nii maanaam dalil yu wér yoo xam ne nit mën na cee taxaw loolu dégg nañ ko ci waxtaan bi dëgg-dëgg ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla na la fi yàlla yàggal te may la wér ba nga xam ne li nga jëlee ci mag ñi danga ko mën a toxal mu dem ci ndaw yi loolu nag suñu responsabilité ñun ñii nga xam ne ñoo ne ci média yi di wër mag ñi fexee jël liñ yore loolu suñu rôle la te incha allah ngeen ñaanal ñu yàlla lépp luñ ci mën danañ ko def. léegi nag gannaaw boo dikkee ñun ci Cheikh Ibrahim ak gàmmu ak bëgg yonent ak ormal yonent ba ormal ko ormal yonent ku bëgg yonent bi bëgg nañ la gis nañ xista yi nga xam ne indil nga ko ci euh, ki doon yëkkati nit ñi pour teg ay gan. yoo xam ne teew nañ ci sëti si Ahmed Bamba moom ma ngay xalaat di xool xaadimu rasulullahi kon dëgg-dëgg loolu dars la boo xam ne ñun ñëpp war nañ ko jàngee ci bàyyi dafa am loo wax ci wax ji tam am solo lool mooy Cheikh Ibrahim mu bëggoon bëgg lim nen ak foo mën a nekk ormal na ñëpp loolu nag ñëpp ko war a jàngee ci moom parce que yàlla may na ko loo xam ne ñun xam nañ ne ba ilaa yow mi diin duñ gisati ko yàlla mayeeti may gu day ni may googu loolu sant yàlla Cheikh Ibrahim dafa am cosaan lu mag loo xam ne cosaanal xam-xam la cosaanal diina la cosaanal mbaax la cosaanal jikku la benn mel pour mu mel ko warta nekk njombe war nga ñu tam ne may gim am gannaaw bu mu defee effort yi mu war a def ak may eh, donn gim mu donn ay mag yi baax waaye yàlla def ko may nag loo xam ne moo ko waxal boppam dégg nga de waqat tam ma fatihi henda mahdi sama fatxu bi mat na fekk maa ngi sama laltaay waqat a jami oridalil xay bi te xadaa yi mbooleem gaa yi xay bi yëpp ñu ngi sama suufu àtte lu ma ne noonu la noonu la loolu nag xam nga nit simple ñoom moo ko wax kon sëriñ bi yàlla ñu la yàlla fayal waa Média de la Fayda kontaan nañ ci yow lool laylatul mawlidi la si kaana li di ne sororon bi yaw mi he wasdiha salli ya rabbana wa sallim ala هو للخلق رحمة ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وضحاه صل يا ربنا وصل ولما هو للخلق رحمة ليلة المولد التي كان لدي نسرور بيومه وضحاء صلي يا ربنا وصلي على ما هو للخلق رحمة وتوالى البزر الهواتف أنقار ولد المصطفى وهاك الهناء En grand visionnaire, Cheikh Ibrahim Agnasbaï créa le fonds Medina Baye dont la mission est d'accompagner la Hadara à la réalisation de ses projets d'envergure dans le domaine du développement, de l'éducation et de la santé. Une initiative pérennisée par le défunt Khalif, cher Ahmed Tidiane Ibrahim Nias, et appuyée par le Khalif cher Mohamed Ibrahim Nias, Khadimoul Le fonds Medina compte à son actif des réalisations majeures mais à d'autres défis à relever. Participez à la réalisation des projets du Fonds Medina Baye en envoyant vos contributions au 77 481 04 04. mbëggeel ak cofeelu taalibe koy jëmmal. jameetu ansaaru diin Sénégal symposium international Mawlud Medina Baye muy am fukki fan ak benn ak ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru septembre 2024 ci résidence Abdoulaye Bayero këru gan ci Medina Baye mbokk yi loolu ngi koy def ci ndigalu xalifatu saahibil faydati tijaaniya Cheikh Mouhamadoul Mahi Cheikh Ibrahima Niass xaadimul umma imam Cheikh Tidiane Seydi Alioune Cissé imaamu Medina Baye ak ci kilifteefu Cheikh Mouhamadoul Mounhamine na Cheikh Ibrahima Niass Cheikh Ibrahima Niass maanaam tënku gu Cheikh Ibrahima tënku woon ci sunna tasaare gum ko tasaare ak dekkal gum ko dekkal mbokk yi programme bi nii la tëddee àllarba fukki fan benn ci weeru septembre 2024 bu 16h30 jotee ci la ñuy amal cérémonie ouverture ci discours Cheikh Mouhamadoul Mounhamid na Cheikh Ibrahima Niass président Ansaruddin national toftal ci discours Serigne Aliou ibnu El Hadj Abdoulaye Ibrahima Niass toftal ci discours Cheikh Ahmed Boucar Omar Niang toftal ci discours njabootu parrain bi di Serigne Mbaye Niass ridwanullahi alayhima toftal ci discours porte parole faydatu Tijaaniya Cheikh Mouhamadoul Mahi Seydi Aline Cissé programme 11 septembre 2024 dina am panel ci arabe français ak wolof panel bu njëkk bi dimension diplomatique dans la mission de l'imam de la fayda Tijaaniya maanaam xaymaab tëlluwaay diplomatie ci mission wu imam de la fayda Tijaaniya Alhaji Ibrahima Niass deuxième panel bi la fayda 95 ans après un état des lieux juróom-ñeent fukkeeli ñaareel bi kitaabu nafahaat alqudusiya bu cheikh aboubacar al musanna ibnu alhaaji abdoulaye ñas radiallahu anhu ñeenteelu panel bi ci bés bu njëkk bi danañu waxtaane téere professeur oustaz ibrahima mahmoud diop bi ñuy wax risala ilal kuwet bi mu bind ci cheikh ibrahima ñas ak mazhabam ak jàngale cheikh ibrahima ñas ñu toftal ci juróomeelu point bi ñaareelu bésu symposium bi alxames fukki fan ak ñaar ci weeru septembre bu 16h30 jotee thème bu njëkk bi danañu ci jàngat kitaabu nujumul huda ci dundab cheikh ibrahima ñas thème la production intellectuelle de l'école Soufi di Cheikh Ibrahim Niass di Nourul Kamal de Thierno Assane Deme liggéey bi l'école Soufi bu Cheikh Ibrahim ñas ñi jëlee jàngat boobu ci téere bi di Nourul Kamal bu Thierno Assane Deme ñetteelu thème bi analyse téere professeur Oustaz Ibrahim Mahmoud Diop bi ñuy wax Risala ilal ba beneen panel bi dinañ ci waxtaanee AES ak CEDEAO crise bi ci am ban jàngale lañ mën a jëlee ci jàngaleem Cheikh Ibrahim Niass pour saafara ko mbokk yi kon mawlud Medina Baye 2024 di Cheikh Ahmed Boucar Omar Niang ñi jàpp ko àllarba fukki fan ak xalqi